aca tout droit ndeysaan l'entrée de Niokh Mbadakhoune et l'enfant série de Mbadakhoune ndeysaan Niokh borom Mbadakhoune sampu na ba jënd sama gaay fii ci Kaolack poids léger waaw waaw 6 janvier 2024 lambu Lamasas production Niokh bu Mbadakhoune mooy samp ba jëndoon sama gaay fii ci Kaolack loolu ci poids léger yi la moo ngay jat waaw waaw borom Badakhun Bella Kajaw desan borom sin borom fatik borom jaxaaw ñoo xam ne noonu sa jat ya waaw Doudou Sané si Mbasor aca ñox waaw aca kooku Doudou Sané bu Sibassor la aca Doudou Sané junior wala nga ne Doudou Sané Sibassor ay waaw Daouda Thiangane entre de Daou Thiangane waaw waaw ici à Kaolack 6 janvier 2024 waaw waaw daawudaa ngi noonu ndeysaan borom cangan, borom ganjai, waaw waaw kooni zorom waaw waaw entrée de cangan cangaan daawuda njaay zorom moom ca débat débe mom daaw waaw waaw kooni daaw waaw waaw Daouda Ndiaye Zorom ndeysaan la faséri de Thiangane Give me